Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue ici à Popenguine où l'on célèbre donc cette 135e édition Euh, du pèlerinage marial euh, de euh, Popenguine, donc un pèlerinage réservé à cette Vierge Sainte, la bienheureuse Mère de Jésus, à la Vierge Marie. Donc, comme promis, nous sommes de retour pour un nouvel entretien avec cette fois-ci l'abbé René Manika Ngom, qui n'est tout autre que le curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Fayout. L'abbé, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Bonsoir, c'est un grand plaisir. Alors, Halabé, euh, la première question sera donc toute simple. Nous sommes donc le dimanche de Pentecôte. L'on parle de la venue euh, de l'Esprit Saint. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu Oui, la fête de la Pentecôte euh, est une euh, grande fête dans l'Église catholique. Elle intervient jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête qui clôture le temps pascal où on célèbre euh, la venue de l'Esprit Saint comme promis par Jésus avant de repartir vers le Père. Alors c'est une fête de lumière, une fête euh, où nous sommes réconfortés dans notre foi, où l'Esprit Saint nous est donné à profusion. Alors, la fête de la lumière, comme vous l'avez tantôt évoqué, euh, cette lumière se reflète actuellement ici au sanctuaire marial, le pèlerinage de Popongine. Donc, que représente ce pèlerinage dans la vie d'un chrétien En pèlerinage, d'abord, il faut comprendre dans la vie de tout croyant, c'est une démarche de foi qui consiste à aller rendre d'abord grâce à Dieu pour tous les biens qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. C'est une démarche de foi qui dit notre confiance en Dieu parce que nous venons requérir auprès de lui des grâces par l'intercession de la Vierge Marie à qui est dédié ce sanctuaire marial. Il est donc question de la très sainte Vierge Marie, cette bienheureuse euh, Mère de Dieu, la Vierge Marie en tant que telle. Elle est quoi pour cette Église chrétienne Elle est mère de l'Église du fait qu'elle est mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui au pied de la croix, voyant sa mère, lui a demandé d'être la mère de toute l'Église. Et donc, elle est porteuse de toutes nos souffrances, de toutes nos joies, auprès de son fils, comme elle a su le faire à Cana, en Galilée, où elle a intercédé pour un couple qui était là, en détresse, et le Seigneur a exaucé sa prière. mbégte la comme disent donc les chrétiens. mbégte gu rëy ndege niñ ko waxee ndey ju sell jilee ku ko am am nga lu rëy ci kanamu yàlla ndege yàlla da ko wormaal yàlla da ko sellal tagale ko ak bépp bàkkaar may ko muur gu toll ni mu doon ndeyu musalkat bi euh, donc euh, suñ koy dénk suñuy ñaan ndax mu àggale ko fa doomam foog naa ne amul lu gën a jege diggante doom ak ndey kon suñu ñaan dañuy yaakaar ne day àgg. leneen li ñu seetlu tey euh, bokk na ci ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo def lii di marche bi dox nañ yegsi nañ ci Popenguine ànd ci ak pas-pas bu mot sëkk. mu mel ni tey loolu bokk na ci li gën a fës ci seeni xar kanam waaye tey est-ce que pas-pas boobu noonu tey war naa mën a jël tey li nga xam ne euh, moom mooy première place bi par rapport tey ak euh, wàllu ngëm gi nga xam ne ñu ngi koy dund fii. waaw euh, dafa mel ni pas-pas boobu dafa war a nekk firnde ngëm gi d'abord ndege ngëm gi mooy tax nit nangu sonn coono yi nga xamante ne dañ koy daj ci yoon bi ndege yombul waaye ku ànd ak ngëm. ak takkute ci yàlla dara du la të te foog naa ne li ëpp solo ci li nga xamante ne moo ñu woyloo fiile ci Popenguine moo di ngëm gi ak takkute gi ñu am ci yàlla jaarale ko suñu ndey Mariama justement naka la ñu war a dundee tey sa pèlerinage la bu ñu xasee bu yegsi ci bërëb bi nga xam ne moom mooy fii ñuy wax tey euh, au pied de Notre-Dame de la Délivrance li ci jiitu mooy ci sama gis-gis mooy cant ak ngërëm mhm. sant yàlla ci li nga xamante ne may nañu kàttan ak gracia ba ñu mën a agsi file ci tànku Mariama suñu ndey ndax mën jaarale ci moom ekkati fa moom suñuy ñaan lu ko weesu mooy ñu dund pèlerinage bi ak ngëm lépp li ci war ci ay ñaan ci ay jébalu ñu def ko jaarale ko ci Mariama suñu ndey. Euh, Ah, mais ah, la particularité de ce pèlerinage marial cette année, c'est euh, que la messe sera célébrée dans le tout nouveau sanctuaire. Donc euh, l'infrastructure en tant que telle, comment est-ce que vous la voyez Ah, je dis euh, action de grâce parce que nous avons euh, des politiques qui nous ont accompagnés, qui accompagnent toutes les cités religieuses de ce pays dans euh, la modernisation de, de, nos sanctuaires et de nos cités religieuses. Et nous remercions vraiment euh, l'État du Sénégal qui nous accompagne dans ce sens. Alors c'est un symbole, je crois, de notre unité nationale. Et ça, nous avons à le préserver, nous avons à garantir la paix et la cohésion nationale pour que voilà, des actes comme ça puissent être bénéfiques au peuple sénégalais. Alors la préserver tey ça veut dire également sensibiliser ces fidèles qui viennent ici parce que boobaak léegi ñu ngi koy dégg am na tey taxawaay wala boog jëfin yoo xam ne waruñu ko mën a def ci bërëb bi nga xam ne fii la ñuy jaamoo yàlla. waaw ku wax jaamu yàlla dangay ngay wax euh, ànd ak sellaay am na yoo xamante ne euh, dafa dëppoo ak li ñu fi andi te loolu ñun dañ koy ñaawlu saa su nekk di ñaan ndaw yi di ñaan ñëpp ñi nga xamante dañ fiy ñëw ñu jiital yàlla kuy wut yàlla am na li nga xamante ne mbirum àdduna da nga koy won gannaaw ndax mën a jébal sa xol ak sa xel yëpp. ci yàlla ba mën a jot ci moom yiw yi nga xamante ne moom la ñuy ut fii ñun ñëpp. alors fi ñu koy ndarkeppe moom mooy laaj bu mujj bi jamono ji mu mel ni réew mi yëpp li ko lëmbe du leneen lu dul waxtaanu politique jàppal bàyyil euh, tey tension bi foo làmb rek dënn yi tàng nañ jër tey boo taxawoon tey di waxtaanee loolu noonu tey ci kanamu fidèle wala boog ci kanamu ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy ay acteurs politiques lan mooy tey bataaxal bi nga xam ne di leen ko jébbal. yéesu li mu yéene apootaram yi ba mu dëkkali mooy na jàmm ànd ak yéen ñun li ñuy séntu ñun ñëpp ci réew mi mooy jàmm sax fi ndege si jàmm lañu mën a tabaxee li nga xamante ne mooy suñu sutura réew mooy suñu koom réew ak lépp li nga xamante ne mooy dal voilà loolu lañuy ñaan muy ñi féete ci réew ci nguur bi ñi féete ci kujje gi waaye li ci ëpp solo may woo ndaw yi ñu gën takku di liggéey ci li nga xamante ne day jëmmal jàmm suñu biir. alors démb dañu dégg euh, le père Paul Mandika mu ne ñu ne faites pas comme tous mais faites pour tous kàddu yooyu noonu tey boo ñu ko doon tekkil lan la bëgg wax. li ma ci gis mooy nañu liggéey ci liy jëriñ réew mi yëpp ku nekk bañ a xool yow sa bopp fi nga féete ak li nga xamante ne mooy doon sa intérêt bopp waaye ñun ñëpp ñu xàccendoo dóorandoo jëmale Sénégal ci kanam. alors jëmale Sénégal ci kanam ci kàddu yooyu noonu sax mbokk yi noo la ñuy jaar rek daal di bural bile waxtaan nga xam ne sekoon nañ ko tey ak kii di euh, abbé René Mbagnick Ngom nekk nag ki nga xamante ni moom mooy curé ci paroisse Saint-François Xavier euh, bu euh, Fadiouth abbé cant ngërëm ñenn la di la jaajëfal tam bu baax a baax tey ci diir bi nga xam ne may nga ñu ko ngir ñu séddoog yow li nga xam ne moom moo jëm ci pèlerinage marial bile. ma leen di gërëm tamit